gan gi Abdou Sané coordonnateur Pastef Ziguinchor ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay ñu am mbégte dalalaat la ci matinalu Rewmi euh, FM euh, alors euh, di tàmbale waxtaan wi ak di la laaj seen leader Ousmane Sonko nu yaramam def gannaaw nee nañu def ci amee jafe-jafe tuuti. voilà jafe yi franchement tax na ba dem finalement ci lañ ko yóbbu suma assistance. bon ñëpp gis nañu ci réseaux sociaux ni yaramam demewul noonu mais dafa nag góor boo xam ne góor bu dëgër la lu ko métti lu ko ne lu ko métti du mos a feeñ mukk ci kanamam donc euh, voilà foofu la am na yemagum pour le moment. Mm. ma profité ci loolu pour rappeler circonstances yoo xam ne foofu la affaire yëpp jógee toll nañu tey foo xam ne. Macky Sall dafa am benn haine viscérale contre Ousmane Sonko boo mu jaral ko muy monter ay waa GIGN ak waa BIP pour rey gi tante jéem rey nit ki loolu moo indi ma xalaat benn affaire xam nga fu mu ne nii ñun fii Casamance dañu am suñu ñaar doom yoo xam ne ba léegi kenn xamul lan moo leen rey wala lan moo leen disparaître mooy sergent Fulbert Sambou ak adjudant Didier Badji mais gis naa ni léegi. bala may jéem a interroger ci ay difficulté pour am ban piste laa mën a jël pour def enquête bii war na mun a nekk piste parce que comme am nañu président moo xam ne réunit en plein jour en direct ci caméra yi sax def ko kersa boo amee ku mel noonu te nga am jaaxle ci ay ñaar nit yoo xam ne dañu disparaître piste la war nañu mun a seetaan ci piste boobu est-ce que ci est-ce que jógewul ci moom disparition bu sergent Fulbert ak adjudant chef Didier Badji parce que enquête tam day sukkandiku. sur le vécu moo tax ma ne piste bu baax la beneen élément bi mooy GIGN ak BIP bu ñuy juddoo ñëpp ñu doon tiiteroo mais bu fekkee ñoom tam dañu bëgg a defee ne ni sol tenue mooy nekk délinquant ak gangstérisme franchement nit ñi dinañ leen weddi doole bu ñuy jéem a jaay nit ñi nit ñi ñoo leen may cër mais nekkul dañu leen ragal seen i morom góor ñu leen ëpp doole sax te nga xam ne suñu yaakaaroon ñoom ñaar en dehors de ñoo leen di duma donc loolu seen i kilifa war ñu mën a xam ni. yeneen ordre yi boo koy exécuté sa bopp ngay lor parce que un jour ou l'autre ñu la jugé te daan dinañ la daan ci ci ci loi voilà. alors fan nga teg ni euh, président Macky Sall dafa bëgg a rey Ousmane Sonko. non mais en direct léegi joxe nañu ordre pour di toj vitrine première fois def nañ ko defaat nañ ko deuxième fois yow booy toj vitrine nit. teston yooyu di dem ni mun nañu dugg ci biir yaram nit ki mun nekk infection bu grave. bi Sénégal amee ba léegi Afrique laa la wax sax man mosuma gis président moo xam ne day joxe ordre ñu toj vitre nit oto boo xam ne mi ngi ni daw taxawul nit koo xam ne am na adresse ana ana lan mooy jar nga jël ay force de l'ordre utiliser leen pour ne leen dem leen toj vitre ki kooku Macky Sall rek moo ko mën a def Macky rek moo ko mën a def moo tax ma ne la. mais est-ce que ordre boobu ci Macky Sall la jógee mën na am excès de zèle mën na am mu jógee ci keneen. mais ku dul président Macky Sall non non non mm. nekk am na sa part responsabilité. Macky mm. dafa yor ministre de l'intérieur boo xam ne kooku pour luy neex Macky Sall daf ko gëmloo nii dinaa def loo xam ne zel la Macky Sall tam validé loolu parce que lan la Macky Sall dafa wane carrément ni dafa am benn haine viscérale vis-à-vis de Ousmane Sonko. dem na ba léegi haine boobu yemul ci Ousmane Sonko Casamance yëpp la am haine xoolal lu muy def ci représailles au niveau de la Casamance. sunu ñaar doom ñu ngi nii ba léegi disparaître nañu dëggoo ci benn communiqué bu sérieux ci effort bu muy def noonu ci Ousmane Sonko bu defoon effort boobu ci recherche te waroon nañu mën a xam sergent Fulbert Sambou ak Didier Badji lan moo leen dal mais faalewul loolu yëpp parce que ñooñu Casamance lañ jógee boole ci même bateau bi nga xam ne moo waroon désenclaver Casamance parce que yoonu Dakar bi dafa yàqu carrément boobu yëpp daf ko mettre en suspension donc mais mais bato bi nag monsieur Sané arrêt technique la ñu wax te arrêt technique tam lu jaadu la ci oh, lépp luy daw arrêt technique bi. Ah. lan moo indi arrêt technique bi arrêt technique dafa a am toujours parce que dafa war a am def ci bato bi loolu moo indi ñu def ñetti bato pour que bii bu demee ci arrêt technique yeneen yi mën a circuler. Hmm. du benn bato ñetti bato la ñetti yëpp mënuñu feebar en même temps trois bato sur trois représailles lay mën a que pour moom waa Casamance voté wuñu ko donc léegi lu mu mën a def pour toroxal leen loolu lay def. toroxal bu gën a métti mooy suñu ñaar doon yi sergent Fulbert Sambou ak Didier Badji ba léegi ñu ñu ngi koy jooy si GIGN ak BIP lu ñuy tiitaru nii yëpp Dakar bu ñu ko doon tiitaru par solidarité ak seen i morom Fulbert Sambou ak Didier Badji tey affaire bi leer Macky Sall ci boppam sécurité bu muy def toujours autour de la maison de Ousmane Sonko bu ko déployé un peu partout tey li dal Fulbert Sambou ak Didier Badji du am boole ci xale yi ñuy rey noonu Bignona toujours préfet bu nekk Bignona toujours lan lan lay am comme ordre il nit dem na ba dëmb a bi dem benn part la ñu tiiree te ko war nañu ko woon tiiree. Hmm. boole ci fii Ziguinchor suñu booy taximan boobu fii lañ ko rey innocemment affaire bi demul fenn mujjul fenn ba ñuy def fii ay autopsie médecin bi ne bal moo ko rey procureur bi bëgg a weddi loolu yëpp. donc dafa am haine ba finalement dafa am un contentieux personnel entre moom ak la région naturelle de Casamance. Hmm. loolu yëpp parce que la Ousmane Sonko moo dëkk Casamance léegi mu xalaat ni lépp luy Casamance daf ko war a rey daf ko war a daf ko donc ñun côté boobu mettre nañu ko en moom ak ay ñooñoom ñi nga xam ne ñoo ko représenté fii ku fi dof dof lu rek di nga xam ñan ñun ñun ñooy ñam donc problème bi il mu mu mu mu mu leer. Hmm. lu ñu def ni Ousmane Sonko c'est au vu et donc kenn mënu ko dëbal dëbal c'est pas possible. Hmm. lu leer la. alors gis nañu nu ñu tojee vitrine yi. Hmm. gis nañu aussi que yére boobu mu sol comme dafa nekk yére bu weex am na benn liquide boo xam ne boobu moo sotteeku ci kaw yére boobu te liquide boobu moom la ñu xalaat ni boobu moo nekk à l'origine de son mal lu muy torox lu muy souffrir muy moom muy Maître Clédor Sy. Hmm. kooku kat lan moo ko jàpp parce que lan la. Macky Sall dafa bëgg à tout prix troisième candidature boo xam ne papa mayu ko yaayu mayu ko nguur gi moomu ko donc mandaam jeex na c'est terminé ma sa mandat bu jeexee da ngay mën a ñibbi mais yëfu baa doole yooyu mooy lan mandat jeex na yow nga ne doo dem dara na la Sénégal yëpp lakk parce que la la da nga ci bëgg a wu. mais léegi est-ce que bu waxee ne du dem euh, defi troisième euh, euh, candidature coow li dina jeex yéen di ngeen bàyyi li ngeen jàpp. coow bon bu ko waxee bu ko waxule sax mënul am bul wax mel nii daf ñuy maye quelque chose mu mel nii faveur la. moomul république bi pour que mu naan moom mooy wax du am du am nit ñi ñu wax nañ ko lu leer du am voilà ñun xaar ñu ba moom muy wax amul pour xaar ko moom mu wax moom mooy kan du mën a am ci troisième candidature mais mais troisième candidature bi quand même bokk na ci liy alimenter tension bi parce que euh, kon yéen bu dul lool lan moo tax ngeen di manifester tey lan. non il a deux choses hmm. attention. Mm. ñun mal gouvernance bu muy def ci suñu ressource naturelle bokk na ci. Mm. arrestation arbitraire yu muy def ba nga xam ne tey les prisons du Sénégal sont les plus peuplées en hommes politiques au monde bokk na ci. les détournements de deniers publics Prodac ci boppam dinañ ko auditer déjà Cour des comptes bi ngi ni déposé un rapport ci affaire Covid bi mm. wax ji demagul fenn te goro moo nekk impliqué au cœur du système sans compter les disparitions les personnes qui kii dafa ñu retrouver son corps nga defee ne impunité boobu ñun dinañ ko béy pas du tout ensuite ñun toll ñu foo xam ne waxaale la du marchandage ensuite nous sommes allergiques à toute forme de compromission et de surenchère. pourtant am na ñuy woote dialogue de. waxtaan am na ñuy woote dialogue waxtaan pour euh, dal dellu si ci réew mi. non boobu boobu ngeen suñu waxtaan bi kon ne nañu wax lu am solo. parce ah, mais dama lay wax ay bonne volonté tey rek ak démb dégg nañu euh, dégg nañu dégg nañu dégg ku mel ni Alioune mu mu mu agité idée oh, dialogue euh, ku mel ni doomu euh, famille Tall le le le le fils aîné du de la famille omarienne woote na au woote kilifa yi aussi pour ñu wax ngir jàmm dellu si ci réew mi loolu yëpp tamit xanaa doo ma ne da ngeen koy tànqamlu waa déglu ma. Mm-hmm. mars ba lay passé. bi mm. quatorze personnes yi décédé. Mm. du waxtaan moo indoon ñun ñu arrêté lépp. Mm-hmm. lan la jur après suñu yaay doom ñoo nekk toujours prison quatorze personnes yi dee ñoo fan la seen famille toll. donc je crois que képp koo xam ne bëgg nga dëgg dëgg dëgg gëm nga li ngay wax il faut nga am courage wax Macky Sall nii république bi hérité la ko nii de son père nii sa maman moom loo ko deuxièmement troisième candidature bi kenn xaarul nga wax ay non oui ou non doo ko am doo lu fi amee troisièmement alal Sénégal sa pap moomu ko sa yaay moomu ko tu es issu d'une famille pauvre mënoo ay milliardaire ba pare nga bëgg say doom nekk ay say jabar nekk ay milliardaire moomoo ko te di nga rendre compte ci lépp gestion bi say ministre et autres gouvernants nga xam ne dañu ragal perte nguur gi parce que dañu xam ne njaaxum lañu ñu créé na ku nekk assumer ses responsabilités moo gën mais kenn du transformer la république nga jël la puissance publique privatiser ko bu ko jël pour ne léegi moom ngay jël pour piétiner les sénégalais tuuti na trop pour mun a atteindre son objectif. d'accord léegi ñun Sénégal. dinañ mhm. ko woon carrément ni ñun ñooy ñan. Sénégal moo nekk au-dessus de la famille de Macky Sall Macky Sall tuuti trop pour mun a imposer quoi que soit au Sénégal amul charisme boobu amul envergure boobu amul pouvoir boobu. d'accord dégg euh, ñu wax ne euh, mobilisation bi nañ ko maintenir pour ñaawlu notamment ñu def Ousmane yéen foofa sa Ziguinchor gannaaw yaay coordonnateur Pastef foofa lan ngeen nar a def ndax da ngeen a nar a maintenir manifestation yi am euh, bàyyi ngeen lépp mu sedd. xam nga manifestation bi. Hmm. Pastef ci boppam moomu ko. c'est le peuple souverain moo ko décidé. dépassé na Pastef c'est-à-dire que même Pastef soo newoon tey dafay arrêté. Mhm. le peuple souverain mooy continuer. léegi lan mooy mot d'ordre bi parce que mhm. affaire de clan la affaire de partisan la. mais bii dafa nekk un mouvement d'ensemble nga xam ne c'est le grand souverain du Sénégal moo décidé comme quoi il faut mettre fin au règne de Macky par tous les moyens comme léegi Macky Sall est sanguinaire. il est à verser le temps pare na pour rey Ousmane Sonko léegi sur les épaules de Ousmane Sonko c'est ce peuple qui veut sauver son espoir moom moo décidé que désormais gatsa gatsa mooy sonné fii ba jour bu ñuy installé Ousmane Sonko palais présidentiel mooy le vingt cinq kon daal mot d'ordre bi yëkkatiwu leen que chaque jour mun ngeen a manifester. moom laa la wax ma ne fu mu ne nii. Hmm. gasta gasta mooy nekk à la mode fii ba le vingt cinq février deux mille vingt quatre fekk Ousmane Sonko nekk président de la République. d' accord mi tuumaal Ousmane Sonko euh, euh, nee na Ousmane Sonko mi ngi bëgg a négocier ak moom ci suuf pour wax ko na ko baal euh, est ce que tey dëgg-dëgg am na preuve li mu koy tuumaal ni que moo luubal vingt neuf milliards yi parce que Mame Mbaye nee na moom il est sûr que Ousmane Sonko amul preuve yow mii nga xam ne jege ñaale Ousmane Sonko nga loo ñu mën a wax ci loolu. xam nga waxu waxu Mame Mbaye Niang hmm. waxu saret la léegi Mame Mbaye dafa bëgg a profiter image Ousmane Sonko pour moom tam mu mun a am envergure mais mi ngi am envergure dans le sens négatif parce que lan la Ousmane Sonko du moromam deuxièmement ñëpp xam nañu jikko Ousmane Sonko Ousmane Sonko nekkul koo xam ne dina def loo xam ne c'est dans les couloirs de façon clandestine mooy lu ñuy wax les négociations secrètes du jikkoom compromission du jikkoom chantage du séddee surenchère du séddee donc Ousmane jegewul même pas propos yi kii di wax hmm. c'est pas du tout vrai par contre li mën a am ba am mooy lan c'est que le ministre l'actuel premier ministre te nekkoon ministre des finances moom ci boppam am na lu mu wax ci Prodac Prodac Mame Mbaye Niang ci boppam booy xool ci réseaux am na lu mu wax ci Prodac en terme que dañ ko accusé d'avoir fait une malversation financière nga defee ne nit ñi xam sànq tey Mame Mbaye Niang bu amoon jom bu amoon fulla war na am kersa sax pour ñu tudd ko ci ay affaire Prodac parce que yow mënoo détourner xaalisu Sénégal ba pare nga ne léegi yow yaay plainte le voleur qui crie au voleur donc la faute est très grave ñoom ñëpp boo gisee aujourd'hui ñuy jéem a wut pexe pour Ousmane Sonko nekk bañ a nekk candidat c'est parce que la ñu xam carrément ne jour bu Ousmane Sonko di nekk candidat loolu yëpp dossiers yooyu yëpp dañuy ñëwaat ci table bi c'est le somme qui peut hmm. loolu moo tax ñoom ñu anticipé ñu ne léegi nañu c'est Ousmane Sonko non seulement dina nekk candidat mais le peuple souverain a choisi déjà de faire de Ousmane Sonko le cinquième président de la République advienne que pourra alors en une minute ñu waxaat ci mbiram bateau Aline Sitoé Diatta bi euh, navire Diambogne moom moo war a assurer un peu euh, relève bi le temps que euh, bateau boobu Aline Sitoé Diatta di pare est-ce que loolu tamit mënul nekk benn soulagement pour pour askan bu Ziguinchor donte nombre de place yi néew na pour Diambogne bu ñu ko méngalee ak Aline Sitoé Diatta. ma fii fu ne nii waa Casamance dinañu gën a torox parce yoonu Gambie bi baaxul. boo amontee benn mbokk boo xam ne day def distance boobu laaj ko dina la ne ab taal lu mu wax loolu la malgré pont bi no pont bi pont la rek mais tali bi laa wax tali bi hmm, baaxul d'accord tali bi baaxul demal garage nga def reportage yi di nga valider li ma la wax ni tali bi baaxul mais Macky Sall moom dafa am benn contentieux boo xam ne moom moo ko créé artificiellement contre la Casamance dafa toog rek jëppi Casamance kenn xam na pourquoi bi Ousmane Sonko le fait que Ousmane Sonko tax mu nekk origine la ma xam naa loolu tam bokk na ci ak le fait mu perte na Bignona perte na aussi perte na Ziguinchor mu perte encore Sédhiou perte ak Goudomp perte Kolda donc loolu indi na ba finalement dafa jëppi Casamance or boo nekkee président de la République même bu dee gañewloo zone doo ne da ngay jël sa mer pour institutionnaliser ko loolu moo indi finalement ñun ñëpp fii actuellement kenn gëmatul benn institution parce que boo nee institution institution dafa am ay nit yoo xam ne yu war a am fulla yu war a am jom mais bu dee da am ay opportunité ñoo xam ne gëmuñu seen talent professionnel pour ñu mën a avancé lu dul def l'arbitre luy nekk par exemple pour ñu mën a avancer kenn moo leen di gëm kenn paale tu leen man bokk ma ñi di def ay demande nanga nanga pour wala information pour match ou autre tout gëmatuma. da ngay xëy rek wàcc ci mbedd mi hmm. ah. da ngay xëy rek wàcc ci non ku koy adressé ci waat adressé ak koy waxal. préfet wala élection hmm. mooy ñi ko respecté boppam pour nit ñi may ko cër mais élection boo xam ne moom ci boppam dafa choisir ñu aliéné ko mu mu neex ko di def loo xam ne mooy neex nguur pourquoi parce que depuis que bu Dakar ancien préfet Dakar nekk gouverneur léegi ku bëgg nekk gouverneur lan ngay def da def loo xam ne loolu mooy neex Macky Sall loolu moo indi préfet bi nekkoon Bignona rey na fa nit ñu affecté ko pré beneen bi ko remplacé Bignona tam mi ngi ni di rey après ñoom affecté ko ñoom ñëpp lu ñuy wut tey pour nekk gouverneur léegi laa le mot de passe mooy lan defal luy neex Macky Sall rek di nga nekk gouverneur bu dee juge la defal luy neex Macky Sall rek di nga dem au sommet. Hmm. kenn gëmatul qualité professionnelle kenn gëmatul le mérite lépp ci lag bi nit la ñu koy def lépp ci courbette la ñu koy def. nga defee dëkk boobu mën nañu mën na nekk dëkk bu mën na nekk ci dëkk. Hmm. tey Ousmane Sonko lan la ñu koy toppee lan la koy toppee. déformation il boo xam ne ñëpp xam nañu ko hmm. ñu ne moom la ñuy plainte vous vous rendez compte parce que dossier Adji Sarr bi c'est vide bi ñu gisee ni dañuy échoué côté boobu jeex na léegi ñu ngi bëgg a attribué ci benn affaire ensuite Macky Sall mooy le seul président au monde nga xam ne moom dafa bëgg a tànn kuy nekk adversaire am ak ku dul nekk adversaire am parce que moom gëmul gloire nii da ngay gëm gloire nga xeex ak ñoo xam ne ñoom nga yemal doole pour que demee nga mën a glorifié wu mm. mais moom tey pare na pour xeex ak sama doom man sama doom bi am trois ans et bu amee victoire dina ko bu yàggee si cela comme les un euh, euh, mauvais élève boo xam ne moom mooy naan professeur question bi laa bëgg nga posé ci devoir bi wala ci composition bi moom noonu la mel. parce que moom mooy choisir candidat boo xam ne wóor na ko dina ko mën a gagné pour mu dem à une élection. Hmm. peu importe amul gloire amul honneur amul dignité. loolu nag loolu lañ fi bëgg génnee désormais. Hmm. ma kii Ousmane Sonko mooy le candidat du peuple il porte les espoirs du peuple et ce peuple en portant sa sécurité et son triomphe pour ko palais de la république au soir du 25 février 2024. kenn ko fi génne. Mhm. jërëjëf Abdou Sané ñu ngi lay gërëm fàttali ni yow yaay coordonnateur Pastef Ziguinchor. ñu ngi lay ñaanal kenn dal ak jàmm. ñu ngi lay ñaanal kenn dal ak jàmm. ñu ngi